dama nan mu ngi dund don côté mu ngi dund de l'autre côté dund bi des na euh, mu ngi dund euh xalé yi ku nek fa nga nek yaa fay bay sa euh di ñafé di créer ngon don côté dama mu ngi dund ndax ñom ngi diem de l'autre côté dama na dundul parce que ñàkk dund bi moy ñi nga xamné ne yaakaar ñom ñoo jitu xalé ci bi war a jàppale xale yi ci aar bi wala defal ay création ñooñu ñooñu manqué eh, te manque bi eh, du ma ne amuñu ko ñun Tëngéej am nañ ko am nañ ko seulement dafa nekk création dafa laaj xaalis te ñun au niveau de de Rufisque jàppale bi ci financièrement fa des dafa des ba nga xam ne moo ta création yu bëri dañ koy bind di ko teg mais duñ ko mën a réaliser ñu actuellement. à euh, euh, euh, Rufisque loolu mooy suñu problème théâtre de la rue lañ jàng ñi fi dem école des arts ñu ngi fi ñoom lañ bëgg ñu ñëw jàngal xale yi ñu former xale yi bu bu ëllëgee xale yi mën na jël relève bi moo tax ma la ñun loolu moo ñu manqué ñi nga xam ne ñoo war a jàngal xale pour ñu relève bi ñun loolu moo ñu manqué. formation lañ manqué. il faut ñu am ko xamné ne que dafay ñëw di former xalé yi bu dee sax 1 mois loolu bu fekkoon amon nañu ay hôtel yo xamné dañ ko tabax la lieu bu mag bo xamné dañ ko tabax pour artiste yi ñu ne artiste ka dañu inviter seen ay morom bu ñu ñëw mën nañ leen dalal fi ñu dëkk fi mais daf ñu gëmbalal affaire bi ñu am salle bo xamné bu mag la ñuy recevoir dafa ay spectacle tëngeeg rek moko ko amul tëngeeg rek mo amul salle boobu tëngeeg rek moko amul bu du woon dañ koy wax chaque jour ñun dañ naan bu du woon fii fondation sokosim bi duñu am fenn fu ñu wane li ñuy def